alors Taïba Taïba aujourd'hui aujourd'hui am na mbir mu leer mooy ne mën nañu xam à peu près yan parti en tout cas ñoom la seen bokk leer en attendant que ñeneen ñi am les parrainages on sait que benn Bokk Yaakaar dina am candidat xalifa euh, Sall dina bokk l'Assemblée nationale va être saisie pour la mise en œuvre des conclusions du dialogue euh, Assane Ba nous assure que Karim Wade euh, sera sera là. Euh, ah, Sonko ah, jusqu'à du contraire mhm. euh, il ne il ne perd pas encore euh, son éligibilité donc xam nañu à après quatre candidats alors euh, le retrait de de de, de Macky Sall euh, yan yan yan yan conséquences aujourd'hui nga yaakaar ne moom lay moom lay am ci jeu politique bi mbir mi dina gën a yaatu wala yéen est opposition bi est-ce tamit. doo leen am problème pour retrouver un un un nouveau discours parce que seen discours yëpp da ngeen ko calqué woon euh, ci ci ci ci Macky Sall et sa volonté de se de se présenter ensuite c'est quoi votre avenir au niveau de de de Yewwi Askan Wi. bon ci sa bi. a jox. s'il vous plaît. non si benn dernier tour de table benn benn benn mbir rek da nga ne taxawu dina am candidat PDS dina am candidat. Pastef jusqu'à preuve du contraire Ousmane Sonko est candidat. ak Benno Bokk Yaakaar ak nag bu tasulee. bu tasulee. parce moom. dama may ma rek. may ma rek. xam nga Benno Bokk Yaakaar moom bi. mën naa tas bañ am candidat mën naa tas bëri de toppatoo taxaw <laughs> non en fait dama leen doon sàddi xeer. mais léegi pour répondre sa question. xam nga situation yu ñu vivre du rek bu tey bi mais ñu vivre ci semaine yi ñu génn dafa am lu mu leeral. parce que Sénégal moo doon dëkk boo xam ne ba y un mois dañ doon jëm ci élection présidentielle dans moins d'un an te y avait une incertitude sur toutes les candidatures ki toog kenn xamul ndax day nekk nekkaat candidat ñi nekk opposition yi am mbëbët ñi ci ëpp ñi ci ëpp kenn xamul ndax mën na nekk candidat tey situation wu tey bi ak euh, ci jaloog bi dafa permettre ñu clarifier position boobu naam sax Grand Assane nee na Karim du dialogue bee ko tere euh, tax a nekk candidat may leeral rek ni ñun dialogue bi aussi bu dee tax na ñu nekk candidat ci anam yoo xam ne la conseil concerné bu respecté woon la nekk ca. texte yi mooy li ñu doon wax léegi bu respecté woon nekk texte bi xalifa Sall ak Kanda parce que Khalifa Sall ak Karim Wade mosu ñoo bokk situation bokkuñu situation kii dafa nekkoon ci biir kii dafa doon waaj a dugg ñu ne ko yow doo dugg ndax lii kii ñu ne ko yaa ngi ci biir waaye doo bokk donc ñun mun nañ jàpp ne même bu ñu ko jaaralee ci article L28 boobu lañ ñu jox ñoo ko moomoon déjà donc dañ ñu ko delloo rek mais pour répondre sa question incertitude bi amoon ci candidature yi daanaka mu ngi ko en fait benn nuage bu moo ci nekkoon mu ngi commencé épaissir di di dëñ xam nañ ne Macky du nekk candidat am nañu njort ni taxawu Sénégal dina am candidat parce que njort la rek comme PDF dina am candidat parce que comme ni ko Cheikh waxee am na yeneen étapes yoo xam ne war nañ war nañ koo franchir bu leen gars yi naxee nag non waxooy moo sax côté boobu hmm. waxooy moo sax côté bañ a voté loi bi mais am na parrainage bi mu bëri mu néew y a un affaire à euh, mu bëri mu néew am na yenn conditions yoo xam ne aussi constitution bi teg na ko code électoral mais équivoque yi gën a metti levé nañ ko la volonté mu ngi fii les lois vont être votées à l'assemblée parrainage bi amu leen xool xam nga xam nga ay parrainage parrainage par exemple lu tax du ñu jaaxal parce que parrainage c'est politique man li may regretter rek mooy ci contrôle la dialogue bi accord bi mu am dama jàpp ne accord bu nooy la mënoon na gën a dëgër contrôle bi ñuy def ci parenage yi man dama jàpp ne contrôle bi am na lu ko jiitu woon mooy supprimer doublon yi parce que électeur war naa am sañ-sañ citoyen parce que nekkul sax électeur citoyen war naa am sañ-sañ parrainer ñaar ba ñetti candidat bu ko neexee xam tax mu am solo parce que ñun ni ñuy defee parenage day nekk une manière de sonder déjà les les électeurs parce que électeur bu nekk bu dee kenn rek nga mun sonde à partir de kenn rek nga mun parrainer à partir du parrainage on peut avoir un échantillon boo xam ne dina prédéterminer euh, résultat wu élection yi. non comment. ah si 42 000 parce que non non non moo tax ma ne un échantillonnage. maintenant est-ce que c'est un échantillonnage par pertinent ou pas mais c'est un échantillonnage. mais mais mais retrait Macky Sall bi lan la lan la mën a générer comme comme comme conséquence positive ou négative. am nga li muy njëkk a mooy un peu comme li xew ci débat ci suñu discussion bi tey mooy sérénité sens des responsabilités lucidité et puis ñun ñëpp ñu xalaat Sénégal xam nga man Ablaye le sait man du ma may dara waa benn bokk yaakaar ak APR mais tey je me réjouis d'entendre le discours de la de Ablaye de Mamadou de Cheikh c'est un discours qui est à la hauteur d'une partie du discours de Macky d'une partie je dis bien c'est un discours ki appelle qui fait sens ki appel à la paix mm. man paix boobu laa bëgg ñu àndandoo construire ko na àndandoo construire ko mooy suba bi ñu xëyee parce que tey tey la waaye dañuy tëdd c'est le grand soir pour ñoom peut-être mais ñun lu ñu intéresse mooy le petit matin demain bi ñu yeewoo naka la ñuy def pour jëm ci ay élections yoo xam ne ña ca war a bokk dinañ ca bokk. élection yi dina jaar ca yoon ba mu war a jaar sànq wax nañ ci benn problème boo xam ne waroon nañ ko régler. pour que élection yi mooy may wax naan pour que élection yi jaar yoon am na yeneen jéego. affaire accès fichier bi. naam sax ay données personnelles la. Mm-hmm. mais yéen ñaata données personnelles ngeen yor di ko manipuler. Mm-hmm. yéen a ngi manipuler fichier bourse de sécurité sociale. Mm-hmm. yéen a ngi manipuler fichier wu. CMU ba pare di ñu wax tey ay affaire ay affaire données personnelles. loolu état la de du parti politique ma ne yéen a koy ma état la. waay. mais mais mais est-ce que est-ce que yéen am ngeen yaakaar aujourd'hui que Macky Sall n'est plus n'est plus partant. mais xam nga yaakaar yaakaar ci yaakaar yaakaar ne ils peuvent y arriver. non attends ñun yaakaar moo ñuy dundal nit d'abord yaakaar a koy dundal rawatina homme politique. xam nga dafa am wax joo xam ne dama koy jàpp saa bu ma saa bu ma toog te di ko faral di wax Khalifa Sall ba mu nekkee Rebeuss mës naa ko seeti. ne ko waajale dina fexe ba doon nekk candidat mu ne ma Babacar man ba may politique onze ans la am xaw ma douze ans yaakaaruma ci woon am dara du dul engagement bi ma tax a dugg ci politique man mag ki peut tout me prendre mais il ne me prendra jamais ma qualité de militant parce que moi militant bu dee yow wala keneen kenn ay fàllu suba pour faire vivre nos idées pour les fair avancer j'ai gagné mon combat wax jooju dafa am solo maintenant lu tax ma ne yaakaar moo ñuy dundal ñun politique yi parce que yaakaar boobu ñuy dundal gannaaw yàlla ci loxu suñu askan la nekk te am nañu candidat am nañu projet boo xam ne yaakaar naa ne bu ñu ko tegee wax ko sénégalais yi ba mu dugg seen bopp mun nañu ànd ak ñun ci yéene bi ñu am ci réew wax naa ko sànq te fii foog naa képp koo xam ne ànd nga xel mu dal rek war nga xam ne loolu mooy préoccupation réew mi parce que li ñuy wax yëpp ay dëkk bi métti na njàng mi sooxe na euh, paj mi sooxe na nit ñi amuñu xaalis am na lu ko jiitu mooy jàmm juboo doon benn parce que bu ñu juboowee ci la ñuy mën a am parce que Sénégal li ci ëpp solo au-delà de renforcer la nation il faut refonder le pacte républicain parce que refonder pacte républicain bu moo tax ñu ñëm ñu nangu nit li nga xam ne moom lañu bokk moo ñu muur mooy les valeurs de la République et les lois de la République loi yooyu ak valeur république yooyu nu mu mënee dal suma kaw man baadoola bi ki jiite réew mi aussi xam ne noonu la mënee dalee sa kaw boo deful la kan la nga war a def